ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ni koy defee saa su ne yi Bamba Faye moo ñu woo fii ci stade Jom Iba Mar Diop balaa loolu bi mooy sixième combat de la soirée diggante Valérie ak Zarko 2 féete leen càmmoñ Zarko 2 moo leen woon droite féete leen ndeyjoor Zarko 2 cokkaas na xeex door na ko cadre daan na ko mu daanu Valérie dóor na Zarko 2 Valérie Valérie dóor na baa ngi noonu dox ci diggante Njalabaan ak Feu Rouge mbokk yi Njalabaan moo leen ginnaaw ngemboo ngemb lu Ndeysaan kookoy Njalabaan Farouz ngeen di jàkkaar lool noonu Ndeysaan ñoo ngi noonu di leetoo ñoom ñaar Ndeysaan ñu ngi xoolante ci bët ñoom ñaari mbëri ñaari mbër yaa ngi noonu saan Njalabaan ak Farouz Mbaysaan le parrain noonu Saliou Khoulé Saliou noonu borom Zik FM a ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu l'international Saliou Khoulé ngi noonu ndeysaan délégation riis na ndeysaan ànd naak ay mbokkam ànd naak ay xaritam ànd naak ay am di jàmmam lépp lu ma la yéene yàlla waaye kenn du yow kenn du yow Babacar borom yàlla na yàlla doomu ndey Baba Faye ndeysaan Saliou Khoulé ngi noonu ànd ak délégation ñaari adversaires yi nga xamante ne barki démb moo njaay la booleen ca Gàmbi jamaïcain yóbboo leen fa gis ngeen Saliou Khoulé nu leen def indi leen fii ci bisam ndeysaan xale yaa nga noonu liiru jaana ngi noonu wulee noonu ndeysaan ba tey ah ñu ngi noonu ci ñaari mbëri Njalabaan <coughs> ak Farouz waat ci combat bi mu dox ci diggante Farouz ak Njalabaan mbokk yi Njalabaan moo leen féete ndijoor Farouz moo leen féete càmmoñ ñaari xale yaa ngi leetoo ba tey ndat Farouz Njalabaan ndeysaan hey lamb ndeysaan temps ba jeex na at nag Aliou Khoule maa lay siyaar naa la maa raw doom gente Omar dañ mujjee gise ba tey ba tey de Balla Gaye <laughs> nag nga nekk ci askan bi di leen bégal tey bis njot ñu dara jàll la bis bi bëgg la cee bégal est ko kontaan sant rek billaay sama xol sedd na xam nga li tax ma gën a kontaan bisu Serigne Saliou tey la 28 man ma tudd Serigne Saliou ki tëgg combat bi tudd Bamba hasard amul. sëñ Abdou Khadir di la laaj. Ah, loolu kenn mës koo gis jiili hasard amul. <laughs> léegi sama xol daal Saliou yëg-yëg bi askan bi am ci yow ak bëgg giñ la bëgg koo ne drapeau Saliou Khoulé mu wax ci yow lu rafet bégal gi ngay bégal askan bi ak fi askan bi teg xam nga ko. a ah, man daal li may wax rek bàyyi Fall laa bi laa koy sante du ma ci leen sëriñ bi rek laa koy sante maa ngi ne ànd ak sama mag Astou Khoule ànd ak euh, Alima Ñoon ànd ak waa rajo bi ak waa télé bi yëpp sëriñ bi rek laa koy sante waaw sëriñ tubaa rek laa koy sante ngay xam lu baax doon jariñ waaw waaw defuma fi lu tax sax ñu tuddee ma làmb baax sa sëriñ bi rek ma dimbali lépp sëriñ bi la moo ma dimbali xale la maa gën a tuuti ci animateur yi mais sëriñ bee ma dimbali rek maa ngi sant sëriñ Touba bu baax kontaan naa bu baax. maa la gën a suñu borom guddal sa fan nga ànd ak wér. li may faan nit bariwul mais yow moom man maa la maa la bëgg Saliou. jaajëf diile jërëjëf. maa ngi lay nuyu. waaw la. Baba nga tëgg làmb ji neex. muy diggante ah, mu tuddati. Sokh ak Gamou Gueye. waaye avant Sokh ak Gamou Gueye. dañuy wax ci làmb ji ñu weesu. muy diggante Pape Ndoye ak Jackson. ban inspiration nga am ba tëgg combat boobu. waaw am lu la ak jéey waaw ak ñoo ma boobu mooy sa première journée. waaw kon lamb tey fi mu toll nii am nañ beneen promoteur boo xamante ni ci yaakaaru lamb la. waaw mais avant tout damay sant am lu laat ak Gibson ak jéey tey ñoom ñoom wan yoon bi comment la tey maa ngi woo akul lamb ñëpp le 15 mars diggante Sokh Gamou Gueye Casamance loolu njarndéem la loolu dina neex de. waaw sa jaamu yaa. bi ñooy lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla. bu gisee lamb fi mu toll. ah lamb ji macha allah sunu borom mi ngi ci def sutura maanaam nu ngi ciy marqué sunuy jéego ah, le 8 décembre maa ngi génnoon diggante Brise de Mer 2 Bulldozer maa ngi jëm ci euh, le le premier mars. Tigo xaritu yaayam mbooy Dakar arène nationale muy lamb joo xam ne ni su ma doomu ndey sama xarit Abdoulaye Ndiaye moo ko taxawal doome ci jàppale di ko sunu promoteur yëpp ku ci demel ni sunu xarit Thiam production laat ne ci sunu ginnaaw di nu jàppale ak jéey ñun mënuñu leen a fay. ndax ginnaaw fu nu àgg ci làmb wax sa mbaax ak waaye du wàññi sa mbaax dara fu nu àgg ci làmb ginaaw yàlla ñoom la kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jërëjëf. loolu ko soxorul mënu ko. non mais ñoom wax sa mbaax ak waaye du wàññi ci sa wax. ñaanul mënu wax sa mbaax ak waaye du wàññi ci sa goog dara nun amuñu lu nuy tiit ci làmb ku demee ni jéey mi ak laat ne ci suñ ginnaaw maag baaba mi amatuñu lu nuy tiit combat dikk ba ñëw duñ yëg ne sax am nañ làmb wallahi lazim maa ngi leen di sant nag di leen gërëm yéen a ngi bay seen wàll ci làmb ji jërë ngeen jëf. bàyyi laat ku jara ñaanal la ci làmb. promoteur boo fi gis mu ne ci kaw jaar na ci moom nga wax ko nga bañ a wax promoteur boo gis guddil na la bëccëgal na la. ndóoba la nuru. xool baa rafet. nee na tur bi ko dàqal ci tur yi ngay yëpp mooy ñàkk caaxaan. waaw wallaay dëgg la te li sëñ Abdoulaye waxan rek wax sa mbaax waay du wàññi ci sa baax dara sëñ Abdou Khadir Dane. Euh, nit ki def lu baax bu doonutoon cër bi la ci suñ borom di fay fañ koy nettalee rek jar na def ko moo tax Abdou Lahat Sénégal gépp a ko war di ñaanal ñu ngi koy sant di ko gërëm. jërëjëf promoteur yëpp ñu ngi koy sant di gërëm di ko ñaanal jërëjëf. sëñ Abdou ñu am kontaante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yow ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay ziar dina la ñaanal yàlla jàmm di la encouragé. làmb xat na xatul waaye dugg jël question posé ko. mooy jéey dana tax information ag fi mu war a àgg maa ngi lay nuyu baax di la nuyu di la ziar euh, di sant bu baax maa ngi lay nuyu baax a baax. yaa ngi jëm ci yan journée parce que promoteurs yi ko wax mu ne la sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye affinité yi nga am ak promoteurs yi ak wóolu gi la wóolu ak ànd bu rafet bi ngay ànd ak ñoom. waaw d'abord xam nga Jibi Ndiaye wala Baba wala Dieye ñun ñëpp ay frère lañu saa di dire kenn mënu nax kenn man nag ndam damaa gënal lu ma mën a te nit bu ñëwee ba ci yow ni la yow laa jox lépp dama bëgg nga jàppale ma ndax sëñ Blaat sama turandoo nee na sab xarit na la gënal sa mbubb mi ngay sol ci bu ko xamee bu ko xamul nga yemale ko ba nga ko xamagut kon as gor bu ñëwee ba li mu am dénk la ko war nga caa def lu kawe njottam yàlla mi am sutura nag di ñu suturaal moom lañ koy sante suñu borom jibi nit ku baax la ñii ñëpp nit ñu baax la ak ñeneen ñun làmb amuñu luñ ci prouvé coono lañ ci yàlla nattoo ku nekk la la yàlla nattoo du tere ñu ngeeg suñu liggéey mais kon li ñu man mooy fexe ba ñoom ñu réussir kon yàlla mi am pay yàlla leen fayal su may xarit lañu ay nit ñu baax lañu jibi garmi la lu mu yox moo ne ci moom suur du ci bari le suur du ci néew le dignité diñ yàllaa koy def ci nit nit bu diñul suurul mënoo koo regal bari la taxut a suur donc na yàlla sant nañ yàlla ba ñi ñu ñëpp yàlla maye leen ñu mel noonu waaye di leen gërëm seen liggéey rafet na ñi ngi koy rafetlu di la wax ne rendez-vous bi le 9 la février sa papa Khadim Samb mooy ñëw di fête retraite Aline Sey 2 ñaq jariñu Buur Siin Eumeu Sène Senior Boy Pambal Sandrep Calcio war faa ñëw bëre ak ay dara bu ñangal gaaro gaar caat Daouda Fall galaay bu mag la fa def buñ fa jógee dimanche ba ca topp le 16 bébé julde caatu yoof kooku jëy production lay doon buñ fa jógee dimanche ba ci topp le 23 Diamond Events Mohamed Diop jiite ko diggante jam céeri ak jet lii bu ñu fa jógee di dimanche bi ci topp ci kattanu yàlla le premier mars Jibson production mooy dellu si Tigo Boy Dakar li ma la wax yëpp arène nationale lay am bu ñu fa jógee dañuy dellu si le 15 diggante soq ak gàmmu géey kooku caam production lay doon foofu lay am ci arène nationale di leen wax daal sant nañ ñëpp di ñaan ci kattanu yàlla. ak mbaaxam lépp lu waay sumb lu jëm ci làmb yàlla na ko réussir ndax ko échec ñun ñoo échec waaye Bamba fay sunu frère ñu ngi koy félicité tey moo woote tey tamit waaju baax yàlla na ko yàlla taxaw waaye kontaan nañ ci yéen ci pongaar yi gudd fan ak wér lan koy ñaanal moom ak ñoxo ñett lañu woon du yaaykat yi bari ki demb yàlla sunu boroom def na lu ko neex loolu su moo ñu looloo war a tax ñun ñëpp ñu xam ne kenn du fi des nan rafetal waaye nit ku baax la bëgg na ñëpp bañul kenn amul xaaj ak seen ci kenn merci beaucoup. jërëjëf Dóor Dóoraat a ngi noonu. sëñ bi noo def. siyaar nañ la du la jox sa wàccu waay baay jiile. yaa yaa journaliste parcelle. te da ngaa baax. mais combat bi dañu am combat boo xam dafa maa ñor. dañ ko préparé préparation bi métti ñaar suñu borom suturaal ñu. may ñu si ndam. nga indi junni. waaw yàgg naa ko andi. combat yi mu dal bëri yëpp man maa koy yóbbu. maag sama doomu ndey la suñu borom def mu tukki maag moom ñoo fi nekk te déggal na ma li ñu liggéey nag da nekk sa kala sa travail pay di ñaan yàlla suñu borom ma ñu ndam rek. nan la war a mën a bëree combat am ba daal. non combat bi waa ji tootaat day si tànk yi na toog si tànk yi di ko xeex ak moom benn benn di déplacé wu ndax waa ji mbëru mbapat la kooku mbëru mbapat la gis nga moo ngi topp fukki supporters yi ambiance bi la topp yow da ngay basé su combat di xeex di ko doxloo di ko xeex di ko doxloo ba mu jeexal à l'ésir doog a ñëw woon ko li nga andi lamb ji noonu ko préparé te yéen ñaan yàlla suñu borom suturaal ñu rek may ñu ndax si yow waan moo leen wan di joor moo leen wan tàmmoñ booy loo moo leen wan di joor junni kenn bañu ko door na junni door na junni door na junni door na am junni ñu ngi koy hypercute ñu ngi koy door mbaadu daanu ñu koy dóor junni fatal sa garde xeex ba metti na junni ndaysaan junni ngay dem ma ngay arrière a ah, junni jàmbaar la junni ku yi nga jël ku ko jël tëdd na junni ku yi nga encaissé ku ko encaissé tëdd dem na teer booy loo dóor na ko ku yu méttee méttee métti waaye junni ma nga jàpp rek ŋànk fi mu ŋànk rek ne du dagg daan rek la gis waaye ñaari mbër ya ba tey ñu ngi ci diggi géew junni ak Boy Lo mbokk yi ña ngay leetoo Boy Lo sànni na léegi làmb cey ñaari ndaanaan sànni na sànniwaan na dina da bu Babacar borom Espagne bi bu la ko fàtte ña xeex ña ngay xeex ndeysaan ña ngay xeex ah dóor na dóor yi metti na junni génn na saako yi temps ba jeex na eh ña ngay xuloo ña ngay xuloo ndeysaan li baaxul ña xuloo ña ngay ba toj na lii baaxul ci mbër lii baaxul ci ndër baaxul ci mbër mbër ya toj na junni ci meekaay ba yëngu na mu ngi siflewaat ci diggante ki nga xamante ni mooy junni féete leen càmmoñ ah booy loo féete leen da joor mbokki arbitre bi siflewaat na ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu drapeau Saliou waaye ñi nga xamante ni ñoo indi kii di junni seen timmekaay bi tas na waa dóor dóoraat ña ngay xuloog seen entraîneur ña ngay wax làmb du noonu làmb stratégi moo koy daan làmb sa entraîneur danga koy jox respect di ko déglu bul ñëw ba ci làmb nga di ko tuutal mbaa nga koy doye del respect la pour ñëpp junni daw na jël ko plaqué nañ ko bañ na junni plaqué nañ ko jàpp jàpp na ci ngemb waaye jàpp bi baaxut moom junni junni junni waa junni ndeysaan junni boyloo junni jàpp na boyloo ngay dóor ci suuf mu ngi dóor ay uppercut junni boyloo ndeysaan junni boyloo junni ak boyloo ña nga ndengeñante ñu ko koy jàppale ndeysaan junni ak Boy Lo ba tey ñu ngi ci digg géew bi ñu ngi jàppante ku ci nekk di teg sa stratégie pour daan sa morom fi mu toll di sëriñ ya noppi nañ ñi àndoon ak yow noppi nañ ñaari mbëri dongo ci des junni bëgg naa mbot Boy Lo bañ na junni Boy Lo ndeysaan junni ak Boy Lo lewaat na junni Boy Lo junni moo wan ginnaaw Boy Lo moo leen wan kanam drapeau Saliou Khoulé ñu ngay xeex junni ma ngay dóor Boy ngay xeex ña ngay xeex ñoom ñaar ña xeex kurpañ yi tàkk na ña xeex mbaa door mu daanu am ña xeex junne ensene na xeex ba junne ensene na xeex ba da neex mu xeex mu neex mu taxaw ña ngay door booy loo ngay door junne booy loo junne booy loo junne booy junni booy loo nañ ña damante baaraam ñoom ñaari mbëri ña ngay damante baaraam junni boyloo ndeysaan junni boyloo junni boyloo ndeysaan junni boyloo jël na ko junni daw na jëli ko mais jël bi baaxut song ba baaxul da ngaa téléphoné junni junni làmb ji làmb ju metti la ndax làmb xale la junni boyloo ndaysaan cey làmb junni boyloo junni boyloo ba tey ñu ngi jàppante combat bi yàgg na metti na waaye fi mu tol ni bu temps bi jeexaatee junni mooy perte junni boyloo junni boyloo Ndioundi Boy Lo jàppante nañ njanga nengejante ku ne di déglu sa morom ndaysaan namm naa sama waaja sëñ Basiru borom mbég mbég taar ay mbokk yi arène nationale dimanche Diaks production fa woo mise bi 10 millions la làmb simple ku ngeen namm ci làmb di ngeen ko gis ndaysaan waaye daa créé beneen innovation bu bees moom Jax production nee na organe de presse buy dugg di joxe cinquante mille francs làmb ji hey Jax production defati nga yëf arène nationale dimanche njar ndéem la foo sànni mbàtt mu tag ndaysaan ndaysaan awaay làmb ji ba tey ñu ngi ci combat Boy Lo ak junni ndaysaan ànd nañ bàkku jëlal ña ngay bàkku wulli ndaysaan liiru jaan ak wulli ndaysaan oh c'est bien beau li mooy làmb lamb bu boolewul warta tàqale liiru jaan ak wulli lañ def barki démb ca Gàmbi tey gis nga ay jàmbaar ngeen Sénégal delloo leen jukkal ndeysaan ba tey ñu ngi ci junni ak Boy Lo xale yaa ngi noonu junni Boy Lo Boy junni xeex na door na ko xeex junni Boy Lo gàllaaj ya junni jàmbaar a ngi nii junni xale bu am jom a ngi nii ku yi mu recevoir booy loo joxe na li waaye junni kenn du moom booy loo sànq ba léegi koy dóor di xeex ndeysaan ña ngay xeex ma ngay xeex junni ma ngay xeex ma ngi koy dóor kaawo na ko déet dóor na dóor na ko ndeysaan dagg na ba sànni na ca ginnaaw ndeysaan sànni na ko ci ginnaaw ndeysaan junni bi wala déet booy ñu jox victoire bi wala déet temps bi jeex na mbaa duñ jox victoire bi temps bi jeex na ndeysaan jeex na booy daan na wut daan na ko ndeysaan ay jàmbaar lañ ndeysaan jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la junni gis may ma junni lan la lu xew junni dañoo gis nga bëre indi xeex bëre joxe li nga am perte nga waaye perte nga ci jom junni perte nga waaye perte nga ci jom perte nga ci fit lan ngay wa waaw sant yàlla sant yàlla santaat yàlla bu baax di di sant ay mbaykan jàpp na ci làmb ci góor a mbaxal billaay wallaay taalaay xam ne sama làmb la billahi wallahi maa ngi jégalu gaay bu baax maa ngi jël naa ay kuy yu métti nag billahi wallahi taalaay mais xam nga du ma daanu billahi wallahi taala du ma daanu maa ngi jégalu bu baax a baax bu baax a baax jaajëf gars jaajëf jaajëf. Gora maa lay ziar. waaye maa lay maa lay delloo sama commune sama doomu day am na lu bari loo xamante ne yaa ngi koy waajal lan la. waaw ah Ouzin production la si stade bi lan bokk parce que ay actionnaire lan fa ñu ngi wàcc euh, événement bu rëy le 2 lan ñuy def conférence de presse fële si siège u Lat Diop rond point 28 bi ñu ngi si ay démarches ku mel ni doomu daan góor a sori nan si torop xam nga Cobra Ndiakhoum ñu ngi si démarche yi euh, nu mu tuddati sax booy bi nekk si Balla Gaye mooy poids tour bi Ndiaga Dollé ñu ngi koy dox moog euh, Moussa Balla Gaye ñu ngi koy dox te am nañ simple simple am nañ 300 mbër simple am nañ 300 mbër. 300 mbër 300 mbër simple. adresse Senghor la chaque samedi waaw championnat lay doon kun daan nga perte ñu ngi si démarche yooyu nga xam ni pare nan ak Ouzin ku mel ni couverture maladie universelle moo nu jàppale moo nu taxawu xam mooy suñu sponsor parce que mbër yi dangay ngay jéeg ba si ak jiili mbër feebar ñu dem naan dan lay gàddal loolu dafa dem dafa war a si lamb am de mbër feebar na nan ko dimbali dafa war a jeex si lamb ñun nag loolu moo nu gën a poussé si làmb man yàgg naa lamb am de yàgg naa làmb Modou Lo bi muy daan bàyyi demi final indi set di bëreeg Mbaye Guèye sama kanam la ama dama sama kanam la boobu ama seen a dugg si lamba ji moog usaar yi dëkkandali tuus loolu sama kanam la. xam naa lu bari ci yow. kenn du ma kenn nettali. Garga Mbossé maa ko yóbboo Malick Niang ku bëgg lu la leer si Garga Mbossé ñaa Niang ñëwal nga taxaw ma interview ma wax la maa yóbbu Garga maa dagg fili lamb duma si gan. xam di gërëm nag sama mbër mi junni parce que man jili bi laal ko ma yóbbu mbër muy laal suuf Garga Mbossé muy bëreeg Moussa Ndoye lu la dégg mais dama koy kon man daa gën a di gërëm nag wasaare am nañ liggéey bu nga xam ne ñu ak yéen ñan si dem te ñu daan pare pour ngeen jàppale ñu jàppalante xam nga rendez-vous le 2 na gaayam ñëw. jaajëf ko merci ak wasaare ah ñu ngi ñëw. léegi nag ana Papa Boy Lo maa lay ziar maa ngi ziar noo bëree junni ba ba làmb ji demee ni mu def noo junni moom nangu nangutu bëree dañ ko conseillé wax xeexal ah te xeex bi sax bëgg ko ndax xeex doon ñu na ko man man xeex quoi moo tax mu ñëw xeex nangatu bëre te xeex bi arrangé wu ko mujj moo tax muy génn saako daw génn saako rek waaw sant naa yàlla nag bu baax a baax nii la yaa tudd woon rek waaye bëgg ma koo nii ma ko boon jàpp daan ko ndax bu li ma am combat mu demee nii man mosuma am division arbitre ay bëri ba temps ba daan la ci ay ay deux mille ay bëri trois mille kon bu baax a baax sant ma jàppale ñëpp sant naa ñëpp bu baax a baax a baax sant waa Thiaroye Géej sant waa bu baax a baax a baax xam nga sant waa Kosma Cambérène sant sama gaay yëpp naa leen ñu ngi lay woo fële. ndeysaan. ndeysaan ñu ngi noonu di remise drapeau bi amul solo amul solo ñoo far. Ndeye Fatou mi ngi ci délégation bi ak Fane Mané ak Katsuala mi ngi ci délégation bi léegi góor gi étudiant ndeysaan moo leen féetee càmmoñ Boy moo leen féetee ndijoor arbitre yi naan leen sifflet moo leen boole waaye sifflet moo leen di tàqale ndeysaan wax naa góor gi wax naa Boy Balde arbitre bi sifflet na. mbokk yi sifle waat na ndeysaan noppalu nañ ba ñëw ci deuxième période baa ngi noonu góor gi étudiant Boy Baldé mbokk booy Boy Baldé ngi dox ci kawam ndànk ferme gardam di dox ci kaw góor gi gi ma ngay arrière góor gi booy Baldé mbaa bi yoon du gaaw wala day yéex góor gi Boy Baldé door na oh góor gi door na ña xeex ña gi jël nañ tànk ba góor gi booy balde góor gi booy balde góor gi daan na ko oh góor gi daan na booy balde góor gi daan na booy balde góor gi étudiant daan na booy balde jël bu rëy. jaa ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb noonu la ñu amee kontaan ak mbégte wan leen li nga xamante ni moo xewoon fii ci stade Diop Iba Mar Diop. dox ci diggante góor gi étudiant ak Boy Balde mbokk yi gis ngeen Boy Balde tu n'as pas démérité bëre nga ndeysaan joxe nga li nga mën waaye góor gi tamit dafa am fu mu jóge am fu mu jëm yéen ñaar ñëpp Moussa Balla gay moo leen boole woon ñuy félicité waat bu baax a baax a baax góor gi étudiant di ko wax làmb noonu la bii passé bi ngay génn arène nationale da nga faa génneeg défaite waaye bi yoon ñëwaat nga Iba Mar Diop am fi ak ndam làmb noonu la ndeysaan ñuy encouragé bu baax a baax a baax Boy Balde te di ko xamal ne làmb tamit noonu la rek nga entraîné waat ñëwaat fii def ni say morom làmb soxla na la te bokk nga ci làmb mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci wasaare làmb ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul ko ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf.